honorable député Pape Birahim Touré maa maa ngi lay fay am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tay bi fàttali ni yow yaay vice président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar nekk itam meeru Jaxaaw alors honorable ñu door ak euh, yenn information yuy wax ne Moustapha Cissé Lo mi nga xamee ni sax dàq nañu ko ci euh, groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar muy njeexitalu dàqam ci APR euh, bu may wul danañ ko dàq ci assemblée nationale te assemblée googa ngir loola antu mi ngi nekk di xool naka lay modifier lii di règlement intérieur am bu ko defee mu mun a génne Moustapha Cissé Lo ci pencum ndawi réew mi loola dëgg laam déet waaw xibaar boobu nag moom amaguma ko Hmm. Euh, ndaxte déggaguma fenn fu ñu ko waxee te bokkaguma ci benn réunion bu ñu waxee ne dañuy modifier règlement intérieur pour dàq assemblée nationale mais li ma xam mooy assemblée nationale def na communiqué en tout cas pour euh, joxe position am ci li nga xam ne moom la constaté ci kenn koo xam ne dafa bokk ci ñun nekk député alors am ci ay comportement yoo xam ne daf ko wax euh, jëm ci ay kàddu yu tegginawul te loolu assemblée nationale def na communiqué ñaawlu ko ñaawlu ba mu ba mu ko ñaawlu nag def naa ne aussi lu war la ñun ñi nga xam ne ñooy député aussi ànd ànd nañ ci parce que nag euh, député dafa am noo xam ne règlement intérieur bi nga xam ne moom moo ko euh, moom ci ci loolu lay doxee ak constitution bi nga xam ne moom moo ko jox euh, maanaam daraja bi mu nekk député dafa ko tënk ci am comportement maanaam xam nooy waxee xam nooy doxe xam nooy defee te euh, di moytu lu bëri parce que euh, population bi nga xam ne moom moo la fal donc yow da nga doon seen seetu war nga am nooy taxawee loolu nag euh, boo ci génnee règlement intérieur bi donc daan na fexe prévoir sax ba am foo xam ne yow boo taxawoo noo taxawul ci assemblée nationale war nañ la cee mun a def ay daan alors loolu nag aussi bu fekkee ne am na kenn ku taxawoo ci ñun assemblée nationale ñaawlu na ko wax na ne aussi am na ci ñoo xam ne. gis nañ ne dañu leen euh, diffamé ngeen ñu sosal leen maanaam waxal leen lu amul ñenn ñu saaga leen donc loolu ñaawlu na ko euh, ñaawlu na comportement député alors loolu bi nga xam ne euh, amu am lim comportement am maanaam méngoowul ak lii comportement député war a am. Hmm. Ah, loolu nag def naa ne lu war la aussi lu war la ndax dañu nekk ci république te république bi ñu nekk ñi koy incarné dañu am noo xam ne dañ ko war a tooge maanaam te loolu aussi. Euh, mënuñu ko bañ a déplorer te toogin bi dafa am lu bëri loo xam ni daf la tënk bu la texte tënkul te tex tënk na la parce que wax naa fi constitution hmm. mooy li nga xam ne mooy charte bi gën a kawe suñu wax naa fi li nga xam ne mooy règlement intérieur assemblée nationale mooy lépp li nga xam ne moom nga war a doxal député moom lay doxale donc ci la koy tënk wax naa fi aussi ci statut bi nga xam ne moom la député am donc loolu yëpp bu xamee ne tënku la it mais am na lu la war a tënk mooy yar ak teggin ndaxte ba nga xamee ne aussi euh, da nga nekk ci euh, euh, dëkk da ngay am référence référence man bi nga xam ne moom laa njëkk am man mooy su may waajur su may waajur bi nga xam ne génn si naa àdduna donc yar nañ ma yar bu ñu ma yar dañ ma naan moytuwul saaga dañ ma naan bul tooñ dañ ma naan bul lii bul lii donc ça veut dire que le temps war naa di jëlee ci loolu référence alors boole na ci it ñi nga xam ne dañu am euh, sëriñ donc seen référence la donc muy ci jàngu bi muy ci diine ji muy ci tarixa yi am nañ ay référence yoo xam ne mun nañ ko mun nañ ko roy ñun ñi ngi am nañ ñoo xam ne aussi donc dañu nekk ci balaa loolu di am démb mu ngi fi woon déggoon nañ fi ay mag yoo xam ne donc gisoon nañ bu baax seen taxawaay ci biir li nga xam ne moom mooy Sénégal donc di ko dégg ci ay commando fen di nga ko dégg ci ay Bamba Diakhou di nga ko dégg ci ay Lat Joor ak ñeneen donc ñooñu ñëpp aussi ay référence lañ woon parce que am nañu ay valeurs yoo xam ne moom lañ doon défendre bu fekkee ne jëm ci wàllu politique bi la man ci wuñu référence man parti bi ma nekk nii président Macky Sall doy na ma référence ci doxalinam ci waxam ci teeyam parce que ñëpp xamee nañ ko balaa muy créer parti que nit ku dal la nit ku am yar la nit ku teey la donc nit kuy déglu la donc loolu principe yooyu sax moom mu am moo tax boo xoolee ni ñu tëggee règlement intérieur Euh, statut parti APR ak réglement intérieur fonctionnement APR loolu yëpp daf ci feeñ daf ci feeñ ne amoon na volonté que parti bi nekk parti boo xam ne buy liggéey la parti bu dal la parti bu tey la parti bu am yar la parti bu am ay valeur la donc mm-hmm. loolu loolu manqué wuñu fu ñuy jëlee valeur ak fu ñuy jëlee référence donc li ci nekk nag mooy Euh, peut-être que aussi du ñëpp ñoo mun a tënk ci loolu. Mm. mais li am solo mooy ñu am comportement yu jub ak yu baax. d'accord léegi lu ñeel la loolu ne assemblée ah. nationale. bu defee communiqué bi loolu la bëgg a wu. Mm. le président Moustapha Niass aussi ñëpp xam nañ dalam ñëpp xam nañ yaram ñëpp xam nañ teeyam. Mm. donc je pense que c'est très normal mu def ko te ñun adhéré nañ ci. d'accord léegi bu weesoo communiqué bi assemblée nationale est am na yeneen daan yu mu mën a teg Moustapha Cissé Lo wala fii rek ngeen mën a yem. waaw le règlement extérieur assemblée moom. Euh, député moom euh, effectivement euh, assemblée am na ay jumtuwaay yoo xam ne mun na dem ba dàq ba dàq député bu fekkee ne aussi tënkuwoo ci li nga xam ne moom nga war tënku ci ay ay ay ay ay comportement pas dàq ko ci assemblée bi. Hmm. ci ci séance yeeg yooyu quoi. Hmm. maintenant peut-être que mun nañ gëstuwaat ba xam ndax loolu mun na am pour ñu. dàq député parce que député aussi li tax ñu nekk député dafa am ay charte yu ko tënk. Hmm. ci ay démission am wala ci ay emprisonnement am donc ak euh, yeneen comportement yoo xam ne donc ñu ngi ci règlement intérieur bi. Hmm. mais li nga xam ne aussi am na daal mooy que assemblée disposé na d' instrument bu fekkee député bi dafa nekk ci biir assemblée te tënkuwul li mu tënk mu ko rappeler à l'ordre rappeler ko aussi mu ñëw ci yenn principe mais nag aussi. am nga règlement intérieur dafa yaatu. Hmm. am na ci yu bëri yoo xam ne aussi euh, yu demee nii peut-être que bu fekkee ne dem nañ ba examiné ko mënul ñàkk ne am na lu ci mën a génn. lu ci mën a d'accord honorable waaye ñu ngi fàttaliku assemblée nationale googa ngay wax euh, ku mel ni Moustapha Cissé Lo yàgg na fa taxaw di wax ay kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla ku ko dégg da ngay tëb. ci kaw ay opposants du ma ci dellu si nag sànq yaa ngi may wax ne bu ma ci amee naa ko génne waaye mënu dellu ci kàddu yooyu mais ñu ngi fàttaliku en tout cas ay wax yoo xam ne jot na ko wax ay opposants te jamono jooja ay mbokkam député ñoo daan taxaw di ko tàccu bu daan dal ci kaw opposants yooyu ndax tey tamit nekkul ne rek xëy na dafa wax lu leen metti moo tax ngeen dal ci kaw waaye yàgg naa wax lu ni mel euh, te ngeen béggoon ci lool apparemment waaw nee naa la léegi sànq bi ma laaj man la dégguma suma dégg aussi ci biir assemblée wala mu mos a fekkee. Hmm. ci biir assemblée bi te maa ngi sama deuxième législature ay kaddu yu toll. ni kaddu pas yu toll nii mais ay kaddu yoo xam ne aussi ku ko dégg da ngay xam ne lii euh, amul. Euh, amul teggin non assemblée nationale. Hmm. muy ci majorité mooy muy ci opposition bi dégg nga fa du benn yoon du ñaari yoon ñu jóg indi werante sunu biir. Hmm. sunu biir euh, te werante bi. mosul toll fii mosuma dégg ñu ay saaga ay ndey ci hmm. assemblée nationale bi quel que soit suñu divergence dem nañ ci assemblée nationale ba nga xam ne nit ñi dóorante nañ ci parce que loolu assemblée nationale yëpp lay am dañuy jógee mais ci wax yi mosu fee mosu mosu mosu am assemblée nationale donc euh, man jàpp ma muy loo xam ne mbirum institution la déedéet mbirum nit la c'est-à-dire tey organisation boo mun di dem hmm. ci monde bi mooy ci Sénégal di nga fa gis ay nit ñoo xam ne mun nañ am yenn comportement yi ça il faut pas c'est le propre c'est pas le propre de l'Assemblée nationale du question institution parce que di ñu ko gis ci ci ci presse bi di nga ko gis ci organisation euh, coutumière yi di nga ko gis ci organisation religieuse yi di nga ko gis feneen donc ñoo xam ne wax dëgg yàlla na nit ñëpp tënkoo tënkoo wuñ noonu donc dañ koy ñaawlu donc amul benn yoon boo xam ne man gis naa vraiment ay propos yu toll noonu mm-hmm. maintenant li nga xam ne nag moo am mooy aussi pour euh, propos yu dajaloo dajaloo dajaloo répété wu donc peut-être day yegg si foo xamee ne aussi donc nit ñi dañuy jël euh, aussi décision pour mun a fonctionner euh, yenn affaires yi. justement décision bi APR jël ngir dàq ko ci parti bi kon yow jàpp nga ne lu jaadu la. waaw man jàpp naa ne APR du organisation la organisation bu am ay texte texte yoo xam ne boo ci dugg yow danga koy adhéré. Euh, am na mooy statut am na aussi li nga xam ne mooy règlement intérieur am mais aussi am na li nga xam ne moom mooy ay ay ay ay ay am ak ay modèle am te référence yooyu ak modèle yi donc dafa nekk euh, loo xam ne ñun euh, jàngaanewuñ ko parce que dañ ko gis te gis yooyu ñu ko gis dañu am ay référence yoo xam ne dañ ko war a dañu am référence yoo xam ne dañ ci war a dañ ci war a dañ ci war a roy te loolu nag buñ ci tonkoo donc ñu ngi ci biir parti bi ñu ngi ci doxal ci parti bi buñ ci tënkuwul donc te di ci démarqué wu lu bëri du benn yoon du ñaari yoon parti bi di di di di waxtaan di ramener à à la raison donc bu jëlee dogal bu mel nii du bett kenn. Hmm. bu jëlee dogal bu mel nii aussi dañ ci ànd. kon daal ci sa xalaat jaadu na euh, parti. Hmm. Hmm? man ne ci sa xalaat daal jaadu nañu ñu dàq ko tey. mais oui man defe naa ne xalaat bi nga xam ne décision bi nga xam ne parti bi jël nañ ko donc euh, ñun ci parti bi dañ. dañ koy dañ ciy adhéré parce que décision parti la du question personne mais question wu parti la parce que aussi ñun ñi ci nekk ñëpp ñun dañoo yem ci biir parti bi gis nga kenn ëppul sa morom lu mu def nit dina toll ci parti bi am position boo toll yaakaar ne yow yaa ëpp li nga def ci parti bi su nit nga ne la toog ba président Macky Sall solo ba léegi gisu ko te mu ngi continuer di jàpp ci liggéey bi te ëpploo sacrifice yoo xam ne moo moo nekk ci parti bi donc soo amee euh, chance wala nga am opportunité am fenn foo nekk taxawale fa parti bi taxawale fa institution bi donc da ngay wax ne man sama am nu ma war a taxawee ak nu ma war a tënkoo hmm. donc loolu nag bu fekkee ne da nga ciy nekk di ko di di ko di ko di ci mooy di ci wàcce te indiwuñu à la raison bu ko yàggee ña nekk ca parti bi aussi euh, dañuy wax ne man sama parti bi gisatuma ci sama bopp donc mbir mi du mbirum nit mbirum fonctionnement la donc organisation ay texte ak ay règlement ñoo koy fonctionner. parce que bi ñu ñëw ci parti bi bu fekkoon ne dañoo indi ku ci nekk nga sa sa diine bëgg a nekk sa référence wala sa tarixa bëgg a nekk sa référence wala si ethnie bëgg a nekk sa référence kon du ñu daje. du ngeen dem ñun mhm. du ñu daje ci parti bi. donc lenn moo nekkoon suñu référence mooy ki nga xam ne moom moo koy jiite di ko incarné mooy le président Macky ak texte yi nga xam ne moom mooy nekk ci texte waxtu bi waxtu bi daf ñu xaw a dab ñu ñëw ci mhm. euh, Cissé Lo tey euh, ndax euh, mën na perte mbalaanu kiiraayam di immunité parlementaire am ndax Yaxam Mbaye di kenn ci ñi nga xam ne yëkkati na ay kàddu yu ñagas teg ci kawam porté na ko plainte ba jël ay avocat ñu war ko défendre njort ne Cissé Lo danañu ko yóbbu ca kanamu yoon ndax bu fa waree dem faaw ngeen dindi immunité parlementaire am. waaw loolu moom xam nga déjà mbirum yoon entre ñoom dégg naa ñu ne dinañ dem ci yoon. Mm-hmm. donc seen droit la aussi parce que kàddu yi mu yëkkati daf ko yëkkati teg ko ci ay nit ñii mu saaga leen ñii mu ne ñu ñii ne dañ leen tuumaal donc loolu bu ñu koy yóbbu ca yoon fa lay leere te bu yoon leeralee mbir mi aussi dana jël ay décision mm. mais ci levée immunité parlementaire ou pas kooku bu ci yegsee wala ñu sëñ yoon assemblée nationale ci la ciy mun a waxte waxee mais li règlement intérieur bi prévoir mooy que député bi effectivement euh, am na boo xamee ne balaa moo dem ci yoon comme ñu lever immunité parlementaire ne loolu aussi mu ngi ko tënk ci euh, li nga xam ne bu fekkee def na ko muy flagrant délit wala bu nekk flagrant délit flagrant délit donc aajowul ñu saisir assemblée nationale bu dee flagrant délit donc dañuy euh, bu du flagrant délit dañuy saisir assemblée nationale am na procédure donc mais loolu li nga xam ne moom moo koy leeral mooy bu fekkoon ne mbir mi dafa dem ba ci yoon dem ci justice justice bu seetee ci li nga xam ne moom la fay euh, laaj ne dañoo war a lever immunité parlementaire booba day saisir assemblée nationale hmm. assemblée nationale moom mooy Euh, seet saisiru bu fekkee ne aussi justice estimé na na donc du ko lever aussi donc parce que c'est flagrant délit la loolu yëpp je pense que dina ci yeggal assemblée nationale ñu xam ñu toll mais mbir mi defe naa ne toll foofu assemblée nationale saisiruñ ko. Hmm. donc euh, mënul xam lan euh, mënul kenn mënul wax ci loolu fan lay toll. mais li ma lay wax ni principe règlement intérieur la donc je pense que comme mu ci yoon ñoom bu demee ci yoon defe naa ne. lu ci nekk ak euh, yoon dina ko xamal l'opinion publique lu ci war a aussi liggéey ak institution yi donc dana ko liggéey ak ñoom euh, yi nga xam ne war nañ ko am. Mhm. ñu jeexal honorable ak mbirum suuf euh, yow yaay meeru jaxaaw mhm. foofa dégg nañu ne danga fa amaloon ndaje moo xam ne danga doon waxtaan ak askan wa ci mbirum suuf lan mhm. moo doon jubluwaay bi ak justement lan ngeen fa waxtaanee ci boobu panel fi la Fatou parce que foofu vraiment woote woon naa fa panel bu yaatu. Hmm. pour waxtaan li nga xam ne moom mooy mbirum foncier. alors prétexte bi nag moo nekkoon dañu amoon euh, lotissement boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko initié woon mu yàgg. alors yàlla def mu antu am ay autorisation jaar fi mu war a jaar yëpp euh, te ñu toogoon jamono yoo xam ne mot na daanaka euh, fanweeru at. amuloon lotissement te population yi bëgg donc mu nekkoon mbir moo xam ne nag fallait que ñu partager avec population yi avec l' ensemble des services techniques nag muy DSCOS muy euh, domaine muy cadastre muy urbanisme pour expliquer population yi lan mooy mbiru suuf mais lan mooy gestion foncière lan nga war a jaar aussi ba nga xam ne boo buggee tabax di nga tabax tabax bu jaar yoon tabax bu mucc ayib tabax bu ànd ak ay normes te dara aussi doo ko doo doo violer tax nga def ko nga def ko monsieur le maire ci jamono joo ne mbirum suuf dafa yëngal réew mi ndax coow loolu ngay daw. waaw parce que man bi ma ko defee nag wax dëgg yàlla boobu sax coow li xam ni amu amuloon. Mm. ndax def na léegi depuis décembre la woon. waaye effectivement coowum suuf moom dafa nekk coow boo xam ne day dem di dellu si rek. parce que mm. suuf moo bëri enjeu. mais euh, li ma bëgg a wax daal mooy fan yi euh, am na ñuy yëkkati kàddu aussi li ma euh, xam mooy gestion foncière moom dafa am li nga xam ne euh, mooy ay textes yu ko régir ku ci nekk am ci responsabilité affaire bi nag euh, li nga xam ne moom mooy coow li lëmbeekaa yi ñu jëmale ci corniche bi mun naa jàpp ne kooku dafa nekk situation boo xam ne daf fay yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg président Macky Sall bu ñëwee nañ jàpp ne moom bokk na ci ñi nga xam ne moom moo indi ay solution ndaxte li nga xam ne fekk na ko fi ñu def ko solution yi mënul nekk benn bu ci nekk da koy indi euh, réponse par rapport ak fa mu toll ñenn ñi li nga mën a sauver danga koy sauver hmm. li nga mën a aaye da koy aye mais li ci am solo mooy aussi li nga xam ne jotagul yàqu mais nga indi ci ay saafara hmm. su ma jëlee tey exemple n bii nga xam ne def na président Macky Sall def na ko tey mu jógee euh, tey université nga yéegi VDN bi mu am ay pont ñëw fii tourné dem ba nga xam ne tey mu nga yëmbal war a continuer ba nga xam ne tey Lac Rose romb foofu mais non seulement bokk na ci li nga xam ne mooy jox jumtuwaay Sénégal ay tali pour que oto mun di daw dem ak dikk ji mun a yomb désenclaver localités yi nga xam ne ñu ngi ci ay yëmbal ak yeneen. Hmm. mais bokk na ci li nga xam ne mooy littoral bi. Hmm. ndax tey foofu ñu def tali bi donc def infrastructure bi diggante ma géej ba. allah euh, gaw ma ma ne. kenn dina fa am wala mu fay sànq te loolu mhm. aussi dafa bokk ci ay politique yoo xam ne dafay anticiper. jërëjëf pour bañ yooyu. Mhm. bañ beneen bi nag mooy gis na ko récemment euh, amélioré na taxes yi donc jël DSCOS dugal ko ci commission CCOD. Mhm. pour li nga xam ne moom mooy gérer suuf si ak yeneen mesures yoo xam ne jël na ko donc pour dire que effectivement am na nag am na yenn yoo xam ne amoon na avant ñëw. donc yoo xam ne war loolu am waaye ba mu amee ba pare. donc li ci mun a sauver da koy sauver. Mhm. la nga mën a defar nga defar ko li nga xam ne nag euh, yow fekk na la te kenn laalu ko kenn yàqu ko kooku du jël ay matuwaay pour kenn bañ ko laata loolu la jël. Mhm. te aussi gis nañ ne ministre bi nga xam ne moom lay euh, dénk mbir mi di urbanisme. donc am na ci taxawaay bu mot sëkk. jërëjëf honorable ànd ak Descos. Mhm. donc te ñëpp di nañ liggéeyu Descos rafetlu ko ci Séné ci Sénégal ak surtout ci Dakar donc li nga xam ne donc ñu ngi koy def ci wàllu. gestion suuf ak gestion maintenant nag. Mhm. Euh, Sénégal moom moo tëdd noonu. waaw euh, amul benn organisation boo xam ne mën nga ko teg te léeg du am ñoo xam ne danañ bëgg a jaar fii jaar ko rek mais li am solo mooy yow jumtuwaay yi ngay teg ak mécanisme yi ngay teg fu bëgg jaar koo xam ne du. ci yoon ba rek daf koy indiwaat ci yoon bi. donc wax na ne. lii mhm. ak lii moo mun a dem te defe naa loolu la président Macky Sall def. jërëjëf honorable député euh, Pape Birahim Touré ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte mu rey dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaay vice président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar nekk itam maire jaxaw ñu ngi lay gërëm monsieur le maire honorable merci jërëjëf Fatou Seye maa lay gërëm di sant. merci beaucoup.